فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون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 mbokki auditeurs ak yi su rajo UCAB FM asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen nuyu fii ñu leen baaxoo nuyee ci 103 point 5 ci seen jotaay bi ñu baaxoo ànd ak yéen ay bis bu jot ci aljuma ci waxtu wi vingt une heure demi jàpp vingt deux heures demi ngeen di ci ànd ak al imaam Serigne Bàkke Abdourahman mu daal ci ànd ak al imaam Serif Hassan te nag xëy na nekk ci ay yeneen yëngu tax ñu wutu ko fi. fas yéene ànd ak Serigne Mbacke Abdourahmane ci tontu laaj yi nga xam ni moo fi rotoon xëy na comme ni ñu koy waxee rek saa su nekk euh, jotaay bu gëj a amit Serigne bi ci lim nekk ak lii ñoo yem tool bee yaatu rek waaye saa su nekk ak waar wi bàyyee kon bu newut ci waar wi tey ma ngi ca waar wale loolu loolay waral xëy na juma am euh, waxtu wi duñ ko dégg euh, waaye du loolu dina ko gënal waaye nag àdduna mooy doxe noonu te it ñi koy yittewoo daa bëri lool ñu koy topp bari lool xëy na moo tax ñu leen koy jéggalu lu baax baax su amut duñu guddal rek incha allah dañuy jox sëriñ bi mu nuyoo bu ko defee ñu daal di door laaj yi nga xam ni moo fi rotoon ci whatsapp bi sax la rote woon ndax bi jàll euh, émission bi daa guddoon ba xëy na jot noonu ubbi euh, rajo bi fii ci téléphone bi ñu mën cee laaj waaye incha allah tey bu ko waxtu bi mayee des na ko ubbi bu sëriñ bi jeexalee ci 33 976 09 09 ak i laaj yi nga xam ne mooy retaat ci groupe bi incha allah ñu yóbbu ko ci aljuma jéeni ñëw kon sëriñ bisimilah. alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi ajmain mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu maa ngi leen di maa ngi leen di di ko tàmbalee ci yow maam Cheikh di la nuyu di nuyu imam Hassan di nuyu mbooleem mbokk yi nga xam ne ñu ngi topp jotaayu xam-xam bi ñu leen baaxoo di defal ajjuma ci ci waxtu wi di ñaan suñu borom may ñu defal ñu ndimbal ak taysiir ñu ngi nuyu mbokk yëpp di leen jaar di leen balaax ni maam Cheikh waxee léeg-léeg xat-xat yi di tax euh, waxtu wi jot te du ngeen dégg suñu kàddu loolu ñu ngi koy jégg lu baax di fa yéene ànd ak yéen jotaay bi di ñaan yàlla defal ci ndimbal te jubal sunu tàmmiñ ak sunu xel te jariñ ci mbooleem ñu koy bàyyi xel bisimilah. jërëjëf sëriñ bi ci nuyoo bu jot boobu ñu ngi koy uh, wax rek imaam mi nga xam ne xëy na moom lañ fi wuutu moom it ñu ngi koy woo ci ngoon ba léegi jotuñu ko tax ba xëy na ñu wuutu ko fi incha allah fas yéene ànd kon ci uh, laaj yi nga xam ni moo rotoon ci. aljuma ji nga xam ni moom la ñu génn ci euh, groupe bu Fass'Alou Ahla Zikri ñaari groupe yu nekk ci whatsapp yëpp incha allah des na joxe numéro yi bu ñuy jeexal ngir képp ku ci bëgg a tàbbi rek mu jaar foofu. kon sëriñ bi laaj bu njëkk bi ki la laaj mu ni ko nga xam ni euh, da yor ay matériel rajo di ko loué ci ay xew-xew xëy na xew-xew diine moo tax muy wax mu ni ndax xëy na ku ko soxla woon. ci lu jëm ci wàllu musique ndax sañ na ko yóbbu moom daal di animer ko ki nga xam ne day yëngu ci wàllu musique waaw xam naa lu jëm ci luwe ay bagages yooyu jëfandikoo ci buntub dimbalante lay dugg day dugg ci buntub dimbalante lislaam nag dafa teg ab euh, xaaxida ci dimbalante mooy ci lu baax ak aw yiw kon bu fekkee ne ñi muy luwe rajo yi daal lañ ci def lu baax la amaa nag bu dee musique bi nga xam ne moo gën a not fii mooy musique boo xam ne dëgganut ndax lañ koy wax waxuwut la muy àndalik jagut bu dee fu mel noonu la moom ku leen luyee ay bagage suñ koy jëfandikoo yaa ngi dimbalante ak ñoom ci mooy yàlla te borom bi daa waxoon ne wala taawanu ala lismi wala udwan kon bu fekkonte ne fu ñuy jàngale fu ñuy tasaare aw yiw fu ñuy yëglee loo xam ne daal lu amal njariñ nit ñi la su boobaa moom luye ko dara nekku ci am maa nag boo xamee ne pala moo xam ne dafa làmboog lu ñu tere ndax fo kese kese moom duñu wax ne dañ koy tere lu dul dafa dox diggante nit ñi ak seeni farata wala mu làmboo lu ñuy tere ci daa mel ne nag bu dee musique ki niñ ko xamee fii moom barab yi niñ koy defee lu baree bari lu ñuy tere mu la làmboon kon ci lu mel noonu nag ab jullit bu bëgg a sàmm bëgg li mu am lew daal war naa mooy moytu di luyee jumtuwaay yi muy yi ñooñu di jëfandikoo mu leen koy luyee ndax mi ngi jàppante ñoom ci bàkkaar <laughs> jërëjëf Serigne Mbacke eh, tontu boobu leer na laaj bi ci topp mbokk mi dee laaj mun ni ko nga xam ne daa nekk ci kër waaye moom ji mu jubale waa kër gi waaye da leen ji ma taqale xëy na am nit ñooñ bëgg nañu génn kër gi mu leen di jëflante ak ñoom jëflante woo nga xam ne daal jaarut yoon mu ndax kooku ngir moom itam mënees naa jëflante ak moom ci njabar eh, njabar moom dafa xaram mu benn illa buy tax nit ki sañ koo jëfandikoo hmm. doonte nag kooku mu wax li muy def loolu dul baax ndax loolu rambaaj la rambaaj ci ñaawteef yi gën a bon ci la bokk am na ne te islam nee na ab rambaaj du tabbi aljanna xanaa du bokk ci ñi ñi njëkk tabbi aljanna ku ci tabbi it àjjana gàcce doon ci moom kon day wane ne jikko ju suufe ju xeebu ju bon la alxaan ŋàññi na ko kon ci ñu mel ni macha bi namim man na alil xayri mu'tadin asim kon ñi nga xam dañuy dox di yàq diggante nit ñi loolu ñaaw teef lu moom waaye loolu nag du tax ñu ne kon sañis na koo njabar ndax euh, bàkkaar dee su ko teggee bàkkaar mm-hmm. aw ay dee su ko dindee waay waaw loolu te ñor moom dafa làmboo pas-pas pas-pas sax lay màbbu mhm. moo tax moom lu mu dëng-dëng moom na ñaan yàlla musal leen ci moom mhm. ak pexe yi maa def ci pexe yi àdduna yu dagan waaye na njabar nit moom ngir bëgg a mucc ci moom wala ngir leneen moom dagan ci lislaam mhm. jërëjëf Serigne Mbacke euh, tontu boobu it leer na euh, mbokk ñu topp di ñetteelu laaj bi day laaj moom euh, nisaab ci asaka ci di ñëw xëy na xaw naa takku nag ci dugub ak gerte ak xaalis da doon laaj jamono jii ku ci bëgg na génn asaka ñaata ngay am nisaab bi daal fu mu toll. xam naa dugub ak gerte nag li gën te mooy li gën moom moo jaadu sax nit ñu bàyyi xel ne li ci doon cosaan mooy lu ñuy natt la waaye doonutoon lu ñuy peese kon mudd wala saa bi nga xam ne moom lañuy jëfandikoo ku ko mën a am. mu wut ko su bàyyatee ba ñorool natt ca benn peese ko nu toll. bu ko multiplier limub saa wala bu dee ay saa ñetti téeméeri saa mooy nisab bu dee mudd mille deux cent junni ak ñaar téeméer mooy mudd mooy nisab su bàyyee ba ñoral bu ci nattee benn pot bu ko multiplier ci loolu dana xam euh, lii nisab ndax euh, loolu mooy li gën donte nag fi mu ne nii danañ wax ne saa ñaari kilo ak liibar la ci ceeb ak dugub hmm. su boobaa ku am Euh, juróom-ñaari bërigo genn wàll sept cent cinquante kilos mhm. ci dugub am njàpp am nga nisaab mhm. bu dee gerte danañu wax trois cent soixante quinze kilos mhm. waaye li ma ta bàyyi xel foofu mooy ñaari gerte wala ñaari dugub man nga leen am fii boo ci nattoon bu ne pot boo ko peesee duñ tolloo ndax diisaayu pepp yu tolloowuñ moo waral nga dégg nit ñi lay lekku la ne la juróom benn bërigo mooy nisaab kii ne juróom ñaari bërigo ñëpp mën nañu wax dëgg ndax kenn ku ne lam natt peese ko la wax waaye pep mam natt walla du gerte gam natt nag tu man la yaani la du tegtale saa su ne ne moo yeneen gerte yi ñoo tolloo diisaay moo tax keneen mën naa natt gerte ci feneen mu jox ko beneen diisaay ok moo tax li gën wut nattukaay boobu waaye hmm. eh, ba bañ ci àgg nag hmm. buñ jàppee ne trois cent soixante quinze kilos nisab la ci gerte Euh, sept cent cinquante kilos nisaab la ci dugub hmm. bu dee xaalis it quatre vingt cinq grammes ci or hmm. gramme or bi nga xam ne it bu ñuy gas or muy génn ci pax mi ñu wax vingt quatre yaakaar naa wala deux wala parce que benn or la wax ne mooy génn bu ñu koy tëgg nag liñ koy booleel hmm. def crayo yi ñuy wax kon day mel ne loolu war a xool ñaata gramme bu ne ñaata lay jar boo ko multiplier quatre vingt cinq lu mu jox loolu mooy nisaab ñun ñii boo ko doon laaj xam naa dana jege deux millions wala wala mu tegal tuuti sax mm-hmm. waaw dañ lay wax ne la gramme mm-hmm. mm-hmm. la nga ko waxee nga multiplier ko par quatre vingt cinq waa da nga xam at moom loolu mooy nisaab ci ñu koy xool ci or te ma jàpp naa ne ñu koy xool ko ci or nag moo gën a moo gën a moo gën a lëng ci ci ci ci eh, li ma ci gis ci waxi borom xam-xam yi ndax dafa mel ne joxe asaka dafa lënkaloo ko am koom ku woomal mm-hmm. kooku la ñuy wax ne moom la asaka war mm-hmm. euh, tuxadu min aghniyaihim waaw euh, loolu la xarit bi waxoon mm-hmm. tuxadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim kon ci ku woomal lañ koy jëlee am na nag ñi koy xool ci xaalis moom mën naa gën a néew waaye somme ba ñuy wax ñaare boo ko boo ko seetloo du tax mu tekki am koom ci lislaam na ci nit ci li xam loolu du tax ñu ne diw di am na loolu denc na ko at du tax ñu ne womal na mm-hmm. waaye lim tollool ci or nag moom ku ko am moom boo ko dencee at dañuy xam ne ku womal nga ku mm-hmm. kon loolu it lu mat di bàyyi xel mooy ab jullit daal day topp saa su ne mm-hmm. eh, ah, yi nga xam ne nii ak dund ci aju mu di ko laaj ko gëstu kon koo xam ne ngay liggéey ci alal war nga di xam daanaka waxtu wu ne gramme or ñaata lay jar hmm. or bi nga xam ne nag bu ñuy gas or moom la ñuy génne njëkk ñu ci soppax hmm. or boobu lay lay lay lay laaj gramme ñaata lay jar hmm. bu ñu ko waxee mu multiplier ko par quatre-vingt-cinq lu mu ko jox loolu mooy nisaab kon foofu ci génne gi moom ndax weer wu mën nga ko see génne ak wala weer ko tàmbali woon rek bu dellu see mën nga parce que nit ki du mooy tànn weer wu ñu koy génne waaye weer wi nga amee nisaab nit ki mm-hmm. waxtu mu amee nisaab rek mm-hmm. nisaab bu fekkee alal yi nga xam day mm-hmm. am at day day mat at asaka loolu cee war lu mel ne xaalis bis bi nga amee nisaab bu del siwaatee ci déwén sa te nisaab ba wut asaka war na moo tax mën naa doon bis bu ci at mi kenn ku nekk bis bi nga tàmbalee bis bi la yàlla dogal ci nga matal nisaab waaw kon euh, fii li ñuy xool mooy wala sax ngay doon koo xam ne danga nga amoon benn benn mablax ci alal nga xam ne yow Euh, bi ngay tàmbali sax man naa am matul nisaab mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. waaye ci biir at mi nekk yaa ngi doon yaxantu ci xaalis bi ba mat nisaab mm-hmm. nga xam ne ci misaal man nga am benn million di jënd marchandise euh, biñ ci doxalee fukki at ak fukki weer ak ñaar mu del si mat nisaab kon bis bi nga amee woon million bi bu del si waatee fekk mat nisaab asaka bi lay ndax li ci des li ci nekk ku jur kon du ne rek dañ nit ki day tànn léeg la nga dégg ñu koy wax tànn weeru koor ñi tànn weeru tam xarit waaye nañ xam ne asaka mm. du nit ki mooy tànn weer wi ñu koy génne mm. waaye weer yu mu amee nisaab mm-hmm. wala weer wi nga xam ne fekkee ku commerce la mm-hmm. bis bi mu tàmbulee yaxantu mm-hmm. su bis bi del siwaatee te alal ji dem ba man nisaab donte ba muy tàmbali mu toll nisaab bis boobu mooy amatam bu dee mbay yi nag saa bu ñoree la moom saa su ñoree saa su ñoree bu doon koy bàyyi ñaar nangam yoon ci at mi it saa bu ñoree tamit ni saab as ko wàcc sëriñ Mbacke foofu it xëy na li matula leeral foofu ci asaka yi mbay mooy bu ñu koy génne ñaari am na ñooñ xëy dañ koy jàkk di ci togg ak yu ni mel di xaar bojj ko doog génne asaka ji gerte it xëy na ñi nga xam dañuy dem di bees ñu jëri ji ñun ñu leen di nattal ca gerte ga ñu yóbbu ca génnewuñ asaka gi loolu it ndax euh, lu ñu war a defee noonu lañ ko war a defee waaw xam nga li am solo mooy soo bayee ba ñoroon nattal ba xam ne am nga nàngam hmm. mën nga cee lekk nag waaye fekk nga xam ne asaka ji moom nàngam la tool hmm. kon war a def rek mooy natt la xam ne tool bi kat nàngam la hmm. sooy maye booy lekk looy maye dafa nga nga bàyyi xel ne war na maa génne asaka ci asaka ji nàngam la su ko defee loo ci lekk surtout ay mag ñi ñu doon defee bu ñu daan dagg mbool sax dañuy def fu ñu dagg fukki mbool jël wenn wa teg ne mais lii kat asaka ji la mm-hmm. nga xam danañ fexe ba luñ ci jariñoo loolu danañ génn asaka yi lool loolu mm-hmm. buntu bu buñ mën a bàyyi xel la ku mënta toog nattale lépp benn yoon mm-hmm. saa boo si jariñoo lu saa boo jëlee fukk rek beral benn ba dañ ko jariñoo boo natt ay paan wala ay pot foo natt fukki paan xamal ne genn paan nga denc ko bokk ci asaka ji jërëjëf Serigne Mbacke Abdourahmane mbokk yi bàyyi xel seen rajo ICAM FM rajo Université Ahmad Bamba yéen a ngi seen jotaayu di jotaay laaj ak tontu Serigne Bakhy Abdourahmane di tontu laaj yi nga xam ni moo fi rotoon kon Serigne bi laaj bu ci topp day laaj mu ni ki nga xam ni ngërëmul waajuram da ko faat xëy na ba ay waajuram génn àddina mu ni ndax mënees na koo dabaatal. xëy na dabaatal ko moom dana jafe waaye nag mënees na wéy di di ko defal lu baax moom ndax nit bu faatoo lu baax li ak njabootam def da koy fekk foofa mm. di ko ñaanal di jokk ay kóllëreem mm. yokk ay kuréelam ñi nga xam ne wëlërante woon na nit ak way juróom ci àdduna it mu jéem a rafetal jëmee ci ñooña mm-hmm. loola moom mën na ko bégloo mën naa doon aw yiw ci moom mm-hmm. waaye nag sàggan ba soo way jur faatu te nga nga nga ngërëm la nga waroon a am ci moom nga mën ko am te amoo ko moom mm-hmm. euh, nit ku ko def rek ñàkk xañ na boppam yiw bu bare bari lu ma moom sëriñ bi ci euh, tontu boobu euh, mbokk yi kon yéen a ngi bàyyi xel seen jotaay fasalu ala zikri ngeen di ko am aljuma ju jot guddi aljuma ju nekk vingt et une heure trente jàpp vingt deux heures trente ngeen di ci ànd ak al imaam Serigne Mbacke Abdourahmane mu daan ci feggu ak al imaam Serigne Hassan Diouf tey nag Serigne imaam Hassan ngant tax ba ñu wutu ko fi ci àddukaay gi imaam Cheikh Mbaye kon sëriñ bi ñu daal di woy ci laaj bi nga xam ne moo ci topp euh, mbokk mi daa mel ci usul lay laaj mu ne xaayda yi di ñëw lan lañ ci jublu bu njëkk bi mooy euh, zaddu saraya mu ñi lan lañ ci jublu. Euh, saddu zaraay da ci qawaid fiqhi la bokk ci mazhabu malik danañ koy jëfandikoo lu bari lool maanaam ñu ngi ci jublu ngir moo xam ne daf dagan na moom waaye day mën a jur lu ñuy tere ñu ne kon nañ ko tere nga xam ne wuñ ko ngir ne moom daa baaxul waaye nag la muy jur a tax loolu bari na ci mazhabu malik mm-hmm. yi ñuy tere yu bari yoo xam ne saddan li daraay amoo tax saddan li zariha bokk na ci dañuy tere jaay raisin ku koy nal di ko def sàngara xam nga jaay moom terewuñ ko mm-hmm. jaay raisin terewuñ ko ni ñuy jaay mango jaay nangam mm-hmm. waaye matière boo xam ne nit kii mën na koo soppi sàngara mm-hmm. yow nga xam ne kii loolu la ko doyee bokk ko jaayee jëmi jaay gi dagan na jaay ko ko day jurlu lu aram ñu ne dañ koy tere saddan li zariha waaw bari na ci yow yu mel noonu yoo xam ne loolu la ñu tudde saddu garaaya nga xam ne jëmmi jëf ji moom terewuñ ko waaye daa mën a jur lu ñuy tere ñu bañ nag loola am lépp lu koy jur ndax dañuy wax ne lépp loo xam ne day jur lu bon dañ ko war a fanq bu taxawee di jur lu araam dañuy jàpp mu dañ ko war a tere kon ci buntu boobu xeeti jaay jamonoy fitna jaay ngànnaay day araam te bu jàmm amee rek jaayante ngànnaay waaye am na jamono joo xam ne nit ñi ni ci kër kër yi di xeex ko la joo di fa jaay ngànnaay dafay aram hmm. ndax sa daan li zaraaya bu mu booyee woon taal taal ci yenn barab yi doon da nga am mbalit di ko taal yeneen lu ñuy tere hmm. ndax man nga ko taal mu doxe fa ak lakk saw moo teew jaa su bi la yàq lu bari hmm. dañ koy tere sa daan li zaraaya loolu loolu bunt bu yaat la boo xam ne ñi gën a yaatal ci jëfandikoo ko mazhab yoo Maalik ci lañ bokk eh, xëy na loolu kon mooy eh, sofaanoog li ñu naan malaatimul waajib bi ilaa bi foofa waajib loo xam te ni safaan bi la waaw ah, safaan bi la safaan bi la mm-hmm. li nga xam ne nii moom farata lii farata la mm-hmm. te mënoo koo def te nangam amut nii mm-hmm. mel na laab julli farata la waaye julli mën taam te laab day nekk farata jërëjëf sëriñ bi eh, ci tontu bu leer boobu mbokk ci topp rek day laaj moom ci moom sax ci benn laaj bi la daa andi woon ñetti xaayida bu njëkk mooy saddu zaraaya bi topp mooy dar ul mafasili muqaddamun ala jalbil masaalih waaw loolu ci qaayida fiqh yi dañ koy wax moo di ne jeñ jeñ lor la jiital ci ñoddi njariñ maanaa su su su mbir nekkee nii njariñ a ci de waaye loolu da caa mën a nekk mën naa am loolu daa dañ koy tere njariñ la ci nekk duñ ko duñ ko duñ duñ ko duñ ko jël mm. ndax mën a fànq safaan ba ca nekk Hmm. dañuy dañuy dañuy jiital tere hmm. Hmm, euh, yàq gi ma la ñuy gën a yittewoo maanaa fekk yàqu gi la ñuy gën a yittewoo ci ñoddi njëriñ li waaw loolu loolu it ci xawaay yi nga xam ne bari na lool ay tatbiqaat yoo xam ne danay feeñ ci ci bunt bu fiy jàngale xawaay fiqhiya bokk na ci euh, li ñuy wax euh, kii maanaam am na ci sëriñ bi jàngale naan wa tarkuna alkaziba yaa ixwaani afdalu min tilawati alquran xaw naa dugg foofu maanaam day mel ne bàyyi lu bon moo gën def lu baax mu ñuy jiital kon ak jàng alxuraan aw yiw la waaye bàyyi wax lu amul nag ijtinaab la danañ ko wax it maanaam lañuy jiital ci imtisaal yëpp ay ay ay ay daanaka yu ñuy tudd la waaye genn jublu gi la am kon daal su su su ak yàqu amee nga xam ne nga xam ne lii day jur ak yàq mm-hmm. sañ nañ koo fànq doonte njëriñañ ci biir mm-hmm. njëriñ mën na caa juddoo waaye yàq gi nga xam ne nii moom moom la lal nag moom la ñuy njëkk xool mm-hmm. ba tax ñu ne kon nañ ko tare ngir daal am yi mafsada doonte maslaxa ngi ci waaye mafsada ji moom moom la ñuy jiital jërëjëf sëriñ bi tontu boobu leer na xaayda bi tëj ñetti xaayda yooyu rek mu ne aqafu dararayni moom bu ko euh, orma kii waxee borom fuqaha yi bu ñu ko waxee moom tam lu ñu ci jublu. waaw moom itam ñu koy jëfandikoo ci ñaari mbir bu amee yépp nekk lu ñuy tere. Hmm. Hmm? Hmm. waaye nag nit ki mënu cee ñàkk daf benn. mënu cee ñàkk daf benn. Euh, dañuy xool ne bi lor gi gën a woyof. dañuy jël. masalan. Euh, nit sañ naa lekk medd bu mm-hmm. ragalee xiif mm-hmm. lekk medd lor la ndax dañuy tere medd baxut mm-hmm. waaye lekk euh, lor lor ji nekk lekk medd moo gën a woyof lori alkane xiif ba dee kon ñu ne nañ nañ may nañ ko may mu lekk medd ngir fekk lor ju mag jële kon na toggoo lor ju ndaw ji ngir fekk lor ju mag ji loolu misaal la ci bu dee bi ñu weesoon léegi am koy teewlu ci ci jañ jañ mafsada lañuy jiital ci ñor di njëriñ mm-hmm. bokk na ci ay fi ñu koy jëfandikoo yow nga am sa kër mm-hmm. mën a ubbi palanteer ci seen nii ngir ngelaw fa ñëw ak muy leer mm-hmm. waaye soo ko day tiim kër jàmbur yoo xam ne waxtu da ngay seen seeni awra loo warta gis ci ñoom dañ naa la bu ubbi palanteer ndax lan dar u mafsada muqaddam ala jag masla wala sax sa kër sa kër nga ne fi sa sa miiru kër nga gas fa foos boo xam ne hmm. boo ko defee waxtu wen day tooy wala baaj boo xam ne miiru jàmbur bi wala këram néegam hmm. bu yàggee man naa daanu ndax sa baaj bi da koy tooyal hmm. yaa moom yaa moom fi nga nekk de waaye nag daal mufsada muqaddam ala jël maslaha loolu ci ay tat yi xam la bokk naka noonu bii it nag irtikaab axafid dali mu tax xaw na yaatu saa bu ñaari lor dajee daal te benn mënu sa ñàkk bu ñu mënee fànq yëpp dañuy fànq yëpp bu dee yoo xam ne faw na ñu toggoo ci benn dañuy jël bi gën a woyof masalan mm-hmm. tey bu nit euh, faatu woon seex maanaa euh, war na àll jàmbur mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. dañuy xotti biir bi ngir génne àll ji ñaari ñaari bi gën loolu gën a woyof loolu gën a woyof wala doom am na ñuy wax sax ci doom joo xam ne nit ki daa faatu te doom ji faatuwul xotti biiru nit ñor la waaye nag doom ci nekk di dund mel ne xotti xotti biir bi doom ji dund moo gën a woyof bàyyi la ñoo ñëpp ñu dee lu xaw mel noonu yi dina ko jëfandikoo ci yooyu buntu yaatu daal yoo xam ne mm-hmm. ay atta yu bari yi ñu att nii mm-hmm. bari na ci yoo xam ne ci yooyu lay delluwaat mm-hmm. foofu ñu koy delloo jërëjëf sëriñ Serigne Mbacke Abdourahmane ci tontu yu leeral mbokk yéen a ngi bàyyi xel seen jotaayu fasalu ahla zikri guddi aljuma ju nekk vingt une heure trente jàpp vingt deux heures trente ci cent trois point cinq génn ci ànd ak alimaam Serigne Mbacke Abdourahmane ci jottali laaj yi seen mbokk maam Cheikh Mbaye euh, Serigne bi mbokk mi ci topp day laaj euh, mu ni euh, ndax nit sañ naa gëtën doomam ci mu joxe alalam wala mu dépassé ci ñoo nga xam ne ay doomu baayam la wala ay mbokkam daal mu gëtën ko ngir mu jël alalam di leen jox. xam naa way jur de sañ naa ñi doom ngir mu rafetal jëme ci ay mbokkam mm-hmm. rafetal ndax loolu lay sa waaji ban nag nekkul maanaam nekkul farata mm-hmm. moom bu doon bàyyam moom moo ko war a yor moo ko war a fajal ay ak yaayam ak ay doomam ak ñu mel noonu mm-hmm. am naa ay jege ñaale ci des nag dimbale loon ci ci xeeti mbaax yi la bokk kon soññi ko ci xemmeem loo ko ko ak yiwu ci nekk loolu am solo ndax géttan léeg-léeg daa bëriwul njëriñ ndax nit ki mën na ko def ñàkk àllam te du ci jëriñu mm-hmm. ginnaaw yéene wu ci def lu baax mm-hmm. kon fexe ba xamee loo ko def lu baax ci mbokkam daal ba nga xam ne nii kenn du ko ci géttan mm-hmm. bu jotee dana ko def ci ànd ko xol bu sedd xel mu dal loolu moo gën moom moo gën moo gën a yay bàyyi di ko yittewoo daal ci di géttan doomam di ko def loolu la xam ne mën na caa ñàkk àllam du ci amee yiw jërëjëf alimam Serigne Mbacke Abdourahmane tontu boobu it euh, leer na mbokk mi ci topp day laaj mu ni doo bëgg ndal ku ko leeralal li ñuy wax naan ngërëmul baay mooy barke waaye ngërëmul nday mooy aljana xam naa nag dama moom ci aado yi ñuy faral di wax di ko soññ xale yi ngir ñu góorgóorlu ci rek waaye mm-hmm. eh, ci nit ki mu gërëm loo ay taxaw ñëpp mm-hmm. amma nag moom coobare yàlla wala boog yërmaande yàlla moo fa yóbbu nit mm-hmm. saxoon na ne amul ak yonent salaam waxoon ne amul kenn koo xam ne ay jëfam moo ko yóbbu aljanna mm-hmm. soxna Aysa laaj ko ne ba ci yow mu ne ko ba ci man mii mm-hmm. te caa tegoon ne illaa an yataxammadani allahu bi rahmati mm-hmm. nga xam ne kon àjjana am nay sabab nag yu fi yóbboo bokk ci nag gërëm loo say nag yaay ak baay ñëpp ci lañ donte nag yaay mu gën a néew doole kon moo gën a mat a dimbale waaye ñëpp lañ soxla ñu dimbali leen taxaw leen. Mm-hmm. jërëjëf al imam ci tontu boobu leer na euh, yal yàlla fayal yiw mbokk mi ci topp day laaj mu ni lan mooy atteb carte ak euh, ki nga xam ne moo koy def daal lañ la yoon teg ci kawam lañ la lislaam teg ci kawam. carte moom dafa xaraam ci wutiin yu dëgganut yi la bokk. Mm-hmm. waaw fàggu gu la. Mm-hmm. loolu nag mbugal mi mooy bokk na ci nit ki su ko defee alal ju mu ci jëlee alal jëlewut ci woon alal jooju mënta def lu baax mu mun moom mënu cee def lu baax mm-hmm. ndax moomut alal ji mm-hmm. buy jaamu yàlla yàlla du ko nangu lu mu ci def ci lu baax yàlla du ko nangu mm-hmm. bu ko lekkee am bàkkaar faagu gi bàkkaar la lekk gi bàkkaar kon lu ma tamoytu la xam ne ci carte nga ci jote doonte nag fi mu ne bari na lool ay yëfa ngi am yoo xam ne nit ñi bàyyiwuñ ko xel boo xoolee ba ci biir carte la bokk na ci yu bari yi ñu wax naa la boo ci bëggee bokk da ngay woote. Hmm. yónnee message. Hmm. am na neexal bu dul boo xam ne nangam nangam. Hmm. lépp lu mel noonu loo xam ne yow mi ci bokk da koy ñàkk benn fifteen. door a mën a bokk ngir yaakaar a gañe dara carte la. te message yooyu ñuy yónnee dañ ci fay. am na am na am na am na am loo ci ñàkkale. Eh, kon carte la yooyu ci doon dagan rek mooy tey lu mel ne léeg-léeg nga gis ku yor marchandise am di ko jaay. wax ne ci misaal am na jaaykati eh, station essence yoo xam ne dañuy ñëw ne la ku jënd ci man ma jox la benn tikki hmm. dama am benn oto wala benn moto bu may neexal samay client hmm. léegi nag ku jënd nangami litre rek dinaa la jox benn tikki hmm. tikki yooyu nag bu ma nangam ñu tewoo koy bant ko carte néew fa ndax yow da jënd sa gasoil consommé ko kon yow amul benn dërëm bu bàyyi foofu kooku moom marketing li def bëgg nit ñi di jënd ci moom mm-hmm. amaa yii nga xam ne nag da woote di ñàkk xaalis mm-hmm. ngir bokk ci box mi loolu carte la moom mm-hmm. ñu mën a tudde nag dañ xel ne saa boo xamee ne yow da dugal dara nga xam loolu mooy teg sag bokk te doo joxe dara moom dinaa la kay bokk rek nga ñëw dërëm doo ko ñàkk loolu mën naa doon neexal waaye cëpp fii da ngay ñàkk dara dara mën a jot bu ko dee jot gi ñan na koy jot ñenn jot kon yow fii ne li nga joxe woon yàlla taxut te jotaatoo ci mm-hmm. ndax boo ko ñëwut da ngay ñàkk mm-hmm. loolu carte la mm-hmm. carte nag baaxul ndax alal joo ci amee du alal ju leew yàlla jokkutu mbokk defut lu baax jërëjëf alimaam euh, Serigne Mbacké Abdourahmane ci euh, tontu bu leer boobu mbokk mi ci topp day laaj mu ni xay na li ñu ciy wax sax bëri na lool wax ngeen ci lu yaatu lool mu ni lan mooy atteb euh, li nga xam ne moom la ñuy wax euh, immigration clandestine mooy tukki li nga xam ne daal day jaar ci anam goo nga xam ni anam gu gu valable la am ci mbëkk meeg yooyu lan la jël kii def daal lan moo lan mooy ki ci demoon. loolu leer na tukki bu jaarul yoon la. Mm-hmm. lu jaarul yoon jaarul yoon. jaarul kenn mënu ko wax mu dagan mu dagan. Mm-hmm. maanaam adduna dafa am ay doxin. Mm-hmm. yoo xam ne foofu dem mm-hmm. sart yooyu almuslimuuna ala shurutihim mm-hmm. loolu l'islam da koy téye mm-hmm. sart yi nit ñi juboo dañ cee war ci dox barab sàngam réew yi dañoo juboo ci ku fay dem na nga li lii def lii jaar fii jaar fii door faa dem yow nag boo ñëwee di sàcc pour dugg fa yaa ngi tooñ loolu dëgganul mooy kenn mënut a wax bu dëggan yooyu moom di jëlee sit nag lu ko fi jar la moo ko amut lu ko fi jar dëgg la ay nit a ngi dem di fa jële ay teraanga waaye nañ bàyyi xel mbooloo nga fay dem ñibbisiwaat indiwuñ dara mm-hmm. wala sax far ñi faruñ ñibbisi mm-hmm. te dëkk yoo xam ne nag ci cosaan sax nag gàddaay dem ci dëkk boo xam ne wala sax nit ne ci dëkk boo xam ne mënu fa dund di nam ware lislaam da sant mu gàddaay jóge fa mm-hmm. doon defa la juddoo ndaay mu bàyyi ne fa yow nga jóg di gàddaay dem foo xam ne mu leer na la ne boo fa àggee doo fa dund sa diine kenn kenn mu fa dund sa diine mat ndax am na règle yu fa nekk ak charte ak luwaay yoo xam ne day xëtti diine carrément yàlla bu fa am njaboot nag bëgg leen yar yarub diine mhm. waaw sonal nga sa bokk mhm. te njaboot googu buñ fa juddoo mënoo leen yilifati mhm. loi yooyu ñoo leen yilif bu dee jullit bu naa sëy ku jullit mënoo ci dara kon yooyu ay ay yu bare ngi ci yoo xam ne bu bu duutoon dara ñu war koo tere ngir loolu rawatina nag di ko wuti loo xam ne mag ñi dañ leen wax loo am solo mooy tukki du yokk wërsëg dajale wërsëg dong la nit ki tukki ne foo xam ne nii xëy na waroo yu bari ko ba wërsëg dajaloo mm-hmm. waaye doomu aadama ci dundam mënta faatu te fekk wërsëgam jeexut mm-hmm. kon jëru ñaaw bàyyi xel baax Iblis la waxoon ne ittaqullaha wa ajmilu fi talab mm-hmm. al ijmal fi talab noonu dafa dàqoonteeg mbëkk mi ndax sàkku la waaye du sàkku rafet jaar fa wartu jaar la gaal yooyu ñu dugg dem ci dëkk yu tax ko woon a jóg lim yooyu ci nekk dafa ruñ ko ngir li ñu toll noonu moo tax lu ne ci xew yàgg na ci xew loolu moom ak jullit da ko war a moytu mm-hmm. sañ naa sawlu nag jaar ci bunt yiñ ko jaarloo mm-hmm. lu am xam loolu yàlla dogal am na it nag war teefu rëy nguur yi nga xam ne barab yi ñi ñuy jóge dem moom mm-hmm. nguur ya fa nekk am nañu responsabilité bu rëy ci lay xaw ndax buñ sàgganee ba seeni doom yi dëkk amatuñ yaakaar ci des ci réew ma loolu politique bu jaarul yoon la loolu it war nañoo góorgóorlu ba nit ñi seen xel ma dal am yaakaar ci de buñ fi toogee du mën a am jàpp ñu jàpp. nag nguur gu jaarul yoon du layu nit ki def loo xam ne dëgg waaw mm-hmm. ah, loolu du layu mukk mm-hmm. kon ay responsabilité am na ci. Mm-hmm. naa ko faral di wax am na ci yoo xam ne sax way jur la. nit jóg daf lu mu wër dañoo feesal ay noppam ci ay wax yoo xam ne. jàpp ne boo toogee fii doo tekki. loolu dañuy wax ko ko. tuddal ko ay ay misaal ci ay moroom yoo xam ne bañ defee noonu am nañ dara defal nañu wajur ba mujj moom itam mënatut a muñ mu daal di jóg teg ñoo ñooñu am nañ responsabilité ci gone yi dem dugg ci àll bi di di di loolu it mat bàyyi xel la. nit ki daal yar ko fi nga ko fi ko jàngal ko yar ko na xam ne it wërsëgam yàlla da koo mooñaale. Mhm. du faatu jotu ci. waaye sañ dañ koo sant na mu wuti ko. Mhm. waaye nag na ko wuti rafetal. Mhm. jërëjëf Alimaam Sëriñ Mbàkke Abdu Rahmaan mel ni tontu boobu it leer na nañ. mbokk mu ci topp day laaj mu ni ndax ginnaaw nodduk fajar euh, mayees na nit mu julli fa naafila eh, ñaar raakaay fajar la ci jubli ginnaaw bu ñu noddee xëy waxtu wi tàbbi ndax mayees naa naafila foofu ñaar raakaay fajar ko. ñaari raakaay fajar foofu mooy waxtu hmm. ma kenn du ko def lu jiit loolu. Hmm. maanaam waxtu bu xas fajar fi dagan ñaar raakaay hmm. xanaa koo xam ne daa baaxoo woon a julli guddi am bis mu biddanti ba yeewu. fajar jot bu fa xajee mën na koo julli fay julli julli yam baaxoo julli ci guddi gi may nañ ko mm-hmm. waaye bu dul loolu rek euh, bu fajar xasee jot ñaar rakkay fajar kese mm-hmm. moo fi daganal ci la mm-hmm. moo tax sax nit ki bu julli woon ñaar rakkay fajar ci këram door a ñëw ci jàkka ji bu dikkee du def tax tahiyatul masjid loolu mooy li lëng ci masab imam Malik ndax waxtu dañuy tere ko nafila gudul ñaar rakkay fajar jërëjëf alimam Serigne Mbacké Abdourahmane euh, laaj bi ci topp ñaar laaj moo ci des mbokk mi day laaj mu ni ndax dina ki nga xam ne daa tawat may nas ko mu boole ñaari julli yi di tisbaar ak tàkkusaan ki nga xam ne daa tawat ba xëy na waxtu tàkkusaan bu jotee daal mën na waxtu woowu lay commencé xëy na di yëg loo nga xam ne du ko yëg ci bëccëg gi mooy ndax kon may mayees na ko bu tisbaar jotee mu julli tisbaar waaye tam julli waal tàkkusaan ci waxtu euh, julli day am na am na ay sart am na it ay sabab yoo xam ne mooy tax nit ki saña saña boole ay julli boole it ay façon la am na boole goo xam ne jamu taqdim lañ koy wax am jamu taxiir am na lu ñuy tudd jamu suur yi jamu taqdim mooy tisbaar jot masalan nga julli tisbaar julli wala takkusaan loolu may nañ ko kuy tukki koo xam ne bi tisbaar du jot lay waaj a départ waaye fa mu jëm dinaaw timis la fa yàgg kooku may nañ ko mu julli tisbaar ak takkusaan door départ mhm. bu doon timis mën naa julli timis ak gee mhm. bu fekkee ne fa mu jëm fajar la àgg mhm. loolu jamu taqdim la am na jamu xiir nag mooy koo xam ne dafa xëyoon départ mu mel ne dix heures la fi jóge lim dugg daw ba tisbaar jot waaye xam na ne balaa quatre heures et demi wala balaa cinq heures mu àgg fa mu jëm biir muxtaarum takkusaan lay àgg jërul muy wàcc di julli takusaan di julli tisbaar mën na bàyyi ba àgg julli tisbaar julli takusaan hmm. nga xam ne boole na leen waaye ci waxtu takusaan la julli ñaar yëpp hmm. kooku it aji tukki mën na ko hmm. am na nag lu ñuy wax aljamoo suur yi nga xam ne moom ab jamoo la ci melokaan wi waaye nag fil xaqiqa du jamoo loolu ñëpp mën nañ ko ku wopp ku wopput ñëpp mën nañ ko def moom moo di ne nga bàyyi bañ ne la fi mu nii day ñeenti rakka bu boo ko defoon masalan ñaari minute daal moo takku takkusaan jot nga daal di julli tisbaar bi nga sëlmalee takkusaan daal di jot nga julli ko loolu nit ki ko def nga neelul julli ci bopp waxtu moo koy raw waaye nit ko taayal nii rek tisbaar mën naa jot mu def noonu kon rawatina ko feebar danañ may yooyu ku feebar koo xam ne xam na ne bu takkusaan jot ba wutul xelam du fene ndax baaxoo na ko gis di wér tisbaar jot mu julli ko boolewaale ci takkusaan jamu suuri boobu it mën na koo xam ne masalan docteur dañu ko yëngu-yëngu bari baaxut ci yow nga xam ne jóg-jógee di waaj gi bu tisbaar jotee mu dem waaj ñëw julli takkusaan te fekk dañ ko ne del dal hmm. mën na bàyyi ba ñu ne takkusaan ñeenti minute ci des mu daal di waaj julli tisbaar li mu sëlmale takkusaan jër mu julli takkusaan hmm. nga xam ne benn waaj la yenn yëngu lay doon hmm. loolu it baax na bu dee timis ak géet mën na ko def noonu waaye boole nag ñaar yu la timis tisbaar takkusaan la ñuy boole ak timis ak gée waaye yeneen waxtu kenn duñ boole jërëjëf alimaam Serigne Mbacke Abdourahmane mbokk yi yéen ngi bàyyi xel seen jotaay fasalu ahla zikri guddi àjjuma jot ngeen ci ànd ak alimaam Serigne Mbacke Abdourahmane ci tontu laaj yi sëriñ bi laaj bi moom mujjoon ci laaju tey mbokk mi day laaj mu ni euh, ndax ki nga xam ne day yëngu ci jaayum pàkk ndax su jaayee benn pàkk am nisaa bu euh, génne asaka ndax da cay génne asaka am déet wala lu mu koy génne daal. waaw xam nga njaayum pàkk nag bu fekkee ne pàkk yi marchandise la. Hmm. da koy jënd kooku bis bi mu tàmbalee commerce am capital mhm. bu at ma delsee ci bis boobu mat nisaab bu walee asaka su boobaa nag day xool li mu ci xaalis mhm. ak pàkk yi ne kii bi tëjaragut mhm. yëpp mu boole ko xayma leen daal ne am naa temps génne ko asaka loolu nag bokkut ak koo xam ne dafa denc ay pàkkam ngir soxla nga ne moom commerce sax jóg waaye mën naa ne ba jëmmi jamono yitte dab ko mm-hmm. mu jaay ci benn pàkk mm-hmm. pàkk boobu bu ko jaayee xaalis bi mat mm-hmm. nisaab bala ko cee asakawar mu denc ko at kon alal ji nga xam ne nii marchandise la hmm? moom bu at asaka jotee ci moom hmm? du jar du nekk maanaam marchandise bi jar day asakaal xaalis bi yor xaymal bagaa suuf yee nga xam ne jaragut la koy xayma waale ko at mu jot rek moom lay jën asaka muy wax ci misaal daa tàmbali woon ci weeru tam xarit mhm. ci la tàmbali commerce amoon na ñaari million wala ñett bi at mi delsee mat dix millions mhm. waaye dix millions am na ci loo xam ne ay suuf la mhm. waaw jaay waaye nag saabu bu gisul ñu jaay ko tey kooku dey xayma lépp ak koo xam ne dafa jën ay pàkk fee ne moom da koy jaay waaye nag jaay ko léegi bëgg nañ ba mu gën a seer hmm. xëy na am nañu fa war a def bu ñu ko defee dana tax mu gën a seer mu bëgg boobu mën naa xaar ñeent ba juróomi at hmm. kooku moom su demee ba booba mu door koo jaay bu ko jaayee dana ci génne asakay mel naat hmm. nga xam ne moom marchandise la ba mu fi yàgg muy mel ne commerçant boo xam ne gerte ñor wala dugub ñor wala ñebbe nga dem jënd ci lu bari waaye nag pour mu nekk asaka pour mm-hmm. pour mu nekk pour commerce la xam nga ne yàgg yàgg jëriñoo ko da nga koy jaare mm-hmm. waaye nag da nga koy denc juróomi at doo ko jaay masalan mm-hmm. kooku boo ko jaayee da nga ciy génne asakay menn at lu mu fa yàgg-yàgg ne bi nga koy jënd pour ñoo xam ne day jënd ay pàkk am dañuy jënd rek xalaat ne bu seen doom màggee wala seen mbokk ñëwee soxla suuf ñu may may nangam nga xam ne waaye pour commerce taxut léegi nag soxla daba la nga xëy jaay ca loolu xaalis boobu matoon nisaabit asaka waru ci mhm. kooku da nga koy denc at asaka doon la war mhm. Mhm. jërëjëf alimam Serigne Mbacke Abdourahmane ci tontu yi leer yooyu loolu kon mbokk yi mooy laaj yi nga xam ni moo fi ruusoon ci ay bis ji nu génn di sant bu baax Serigne di ko ñaanal bu baax a baax suñ borom taxaw ko yokk fanam wéral ko bu baax a baax li mu naara liggéeyal lislaam mu defe ko ci anam gi nga xam ne googu la ko bëggee. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون